Baye alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani lu sax ci xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex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 tout ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la alhamdulillahi alladhi wal qalami wa ma yasturuun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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ali Imran TV seen jotaay mi tuddee bi dellu si na di ko defal si xadiisu bés bi ay jotaay la yoo xam ne hadis lañ ciy jàng hadis lañ ciy jàng bés bu set ñu jël benn hadis bu gàtt indi ko teg ko ci taabal ji nu bokk ko tiim nu ñëpp jëriñoo ko hadisu tey bi ñu ngi ko jële ci abu hurairata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida tawadda ahadukum falyajcal fi anfihi maa thumma liyastanthir ida tawaddaa ahadukum falyajcal fi anfihi maa thumma liyastanthir addis bi yonent bi def ci jàngale alayhi salaatu salaam lenn ci njàpp lenn ci njàpp nee na kuy jàpp ci yéen na def ci bakkanam ndox te na ko saraxndiku kuy jàpp ci yéen na def ci bakkanam ndox te na ko saraxndiku saraxndiku mooy te na xëcc ci ndox bi bu dee ci koor gi nag bëgguñu mu jot waaye bu dul ci koor gi nag bëgg nañ sarax ndëkk bi jot yonent dafa jàngale mu ne kenn ci yéen su fekkee mi ngi jàpp na def ca bakkanam ndox waaye na sarax ndiku ndox ma waaw euh, bu ñëwee ci commentaire yi bakkan daa am ñaari pax pax mii pax mii ak pax mii pax mi seetaan yu jigéen yi dañ see dëkk pax mi seetaan yu góor yi dëkk ci léegi nag seytaane ak kaña dañoo niroo foofu ay yëf ni kaña ragale ndox noonu la seytaane ragale ndox moo tax boo masaani tiim paxum kaña boo jëlee paanu ndox sotti ko ci rek kaña ga li may wax ni ñi ñi gone ci kaw geeg yooyu xam nañ ci dara xataa sax ci taax yi fu mel ni dakaar boo ma see jël paanu ndox sotti ko ci euh, paxum kaña rek kaña ga génn ndax kaña ga dafa ragal dina kaña daa ragal ndox léegi nag kaña gi fii ak kaña gi fii waaw waaw alxub alxubsu wal xabaayis soo defee ndox ci sa bakkan boo ko sarax ndikoo ñoom tam dañuy tëb dañuy tëb boo door bu ñuy door tëb nag dañ fay bàyyi am soj bu ñu door tëb dañ fay bàyyi am soj ndax dañuy bëgg nga ragal a sarax ndiku di ko yemale fii su ko defee ñoom ñu tëdd fi ñu tëdd mu tax soo ko dee seetlu képp ko tàmbali di sarax ndiku bu baax day daal di yëg am soj soj moomu seetaanu su jigéen si ak su góor si ñoo ko fi bàyyi pour nga ni lii kat dootuma ko defati ndax daf may daf may daf may soj loolu lañ ci bëgg waaye daal alayhi salaam nee na kuy jàpp ci na def ca bakkan ba ndox <clears throat> te na ko saraxndiku iza tawaddaa ahadukum falyajal fi fi anfihi maa thumma liyastansir kuy jàpp ci yéen na def ca bakkanam ndox te na ko saraxndiku bu dee ci koor gi nag bu ko def saraxndiku mu bu gudd moo tax ma naan wa baalix fil istinsaax illa an takuna saayiman nee na mën ngaa mën ngaa euh, mën ngaa saraxandiku saraxandiku bu jot bu fekkee wóoroo boo wooree nag na nekk mu yem ndax dañuy bañ ndox ma jàll di la indil jax-jaxal ak yu nu demee yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadiisu Abu Hurayrata bi jàngale na ci lu am solo mooy bu ñu dee jàpp nañ def ci suñ bakkan ndox waaye nañ saraxandiku ndox ma jërë ngeen jëf ci ànd beeg Ali Imran TV ci biir réew ci bitim réew daa jëfal leen baax a baax nangu ñaan borom mu nangul nu suñu koor te nangul leen seen koor def jàmm ci réew mii ak réew yi ko wër jaajëfal nañ suñ caméraman yeeg suñ techniciens yi gone yu jàmbaar lañ macha allah ñu ngi ci liggéey bi fan man di toll yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Moustapha raw nga ñiile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 283 38 38 suma ya bitig nekk fii ci Parcelles Assainies marché Dior ku la waajal foo wàllee daal